ok bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci bindab xalil bi ba tey ñu ngi jàng nag li ñuy wax al istibra la ñuy jàng nee na wajaba war na istimra un istibra un serlu serlu ñu ne ko laablu laablu nga nekkoon ni koy defee mu ne bis yi ak ba sëy yi sa ko jeexal takk takk ñaari sobem ya sobe si boo ci kanam gi ak bi boo ci gannaaw gi na seet wecc mu doog raxas la muy raxas kooku mooy al istibra u dégg nga dafay am ci jigéen day am ci kuy dem toilette mooy sax ko jeexal tàkk sobe si ne ko tuur ñam bala ngay wax def li ñuy wax laabu ci wolof na la wóor ne lay génn jeex na tàkk tàkk nga doog a jël ndox mi yaa ngi raxas kuy tuur ndox it noonu la nga ne ko ni nga koy defee nag mu ne max salti sakarin ànd ak mu ratt kanam gi ratt jël baaraam ndey bi ak beneen baaraam bi boole ñu ñaar téye ca saxuwaay ba di ko rat ndànk mooy salti sakkarin wa natrin ak di ko yëngal nag mooy natr xafa ñu xoyof ñoom ñaar ndax bu nekkee dafa tar day waral salasul baw li sàjj bi di ci boppam dafay tawee ko day reppi muy toqal moo tax xafa ñoom ñaar nañu oyof ratti bi na oyof yëngal bi na oyof dégg nga mu ne wunu di ba soppeef na nag jam xamayin boole ndox waaji leen ak doj sopp nañ kay def ca toilette ba mu boole ndox ak doj bu dee ca xal ba la nekk kay jël doj fopp ba mu set mu jogo raxas ak ndox dégg bu ko neexee nag am ndox kese moo tax mu ne suba maamu topp ndoxum kese sopp ndox dong dong du ko booleeg dara mu am yoo xam ne nag foofa ndox rek moo fay dem bant du fa dem doj du fa dem mu ne wa temps yi na ràññee ko ne moom ndox fi man yin ci man yu ndox rek moo ko mën si waxay ndox rek moo ko mën wa nifaasin wasin ndox rek moo ko mën wa bawli muraatin sawum jigen ndox rek mo ci man dara wu mutasirin ak saw mu wesaaroo na genn tal dal fu nek am maxrajin wala genn way ba te gurle. gor la kese du bare bare bare ndox rek ci man dara fofu ndox rek deng nga ndox rek mo ci man dara mot mune wala muhtaramin càggeen lu ñu xormaal lu bu mu ko tàncoo lu mel ni ñam kenn du ko foppee sobe laa mu tallin du caagin loo xam ne lu tooy la déedéet kenn du ko foppee daganut daganut ne wa najisin du caagin sobe sobe duñ ko foppee sobe yokk ci xar mi yokk ci xar mi kawar la dégg nga wa am las lu tax buñ ko tàncoo u muhaddadin loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu ñawal la lu ñawal la nga mel lu mel ni paaka kenn du ko tàncoo dégg nga u maxtara mi indiwaat na ko loolu mu ne laal moom min man xoomin daala mu tukkee ci ñam da koy leeral u maktoo lu ñu bind la kenn du ko tàncoo kayit gu am alquran yu mel noonu wa saxaabin wurus duñ ko foppee sobe bu fiddatin xaalis nekk noonu kenn du ko tencoo yi miir nit ñaa ngi koy def fopp def ci miir yi baaxut daganut waas min yax kenn du ko tencoo duñ ko foppee sobe rawsin neefarey daaba fas la wala mbaam la kenn du ko tencoo fi ñu anqat ndem set na ca benn yoon ba acca doy na bu ëppee benn yoon it set na doy na jëru wutu ndox loolu lay jàngale nde bu fekkee da nga ay bant foppee ko ba mu set wecci jëru wutu ndox doy na yaa ngi ci digg àll ba amoon ndox fañ nga aajo wut ay bant ak yooyu ba mu set doy na ñu ko ah mooy la kal yi di comme loxo yi di buy loxo la waaye set na doy na wa na salaasi wala lu man ki ñetti sax matul ñetti bant waxoon naa ne ko léegi benn wala ñaar la waaye seet na doy na te dox laa lancé moo tax sangu farata dafa am sekkere bu ci nekk bu taayee na fi ma ni yin gis nga ku sangu falata bu sangoom saabu tuuroo téeméer butéeli parfum poqataan yi rek moo tax ñaareel ñi ko dul def foo leen gis ñu nga ànd ñu dul sangu set nga xam ni seen diine ji duñ xamuñ sangu set luñ set set seen poqtaan yi day xañ moo tax islaam kenn xamul dinaay lan la dinaay ci luy siis la set wecc joxal islam set wecc joxal islam loo mën a sangoo saabu te loo sangoo farata say poqtaan yi xañ rek xañ rek waxoon naa ko fi ne boo déggee ñu naan eau de Cologne ñu ne leen daan parfum lat Cologne lat Cologne baat bi lañ yàq baat bi mooy l'eau de Cologne l'eau l'eau de Cologne tuwaay ñu doon wax naan ndoxum Cologne mi day dàq xet gu naqari googu xet gi ci poqataan yi xam nga tubaab ñoom du ñu sangu farata léegi ñoom du ñu sangu farata euh, léegi nag moo tax seen poqataan yi day am xet gu naqadee naqadi ñu ne kon ndoxam koloñ moomu baax na ci wax ñu naan loo de koloñ loo de koloñ ca la cosaanu koloñ ñoo njëkk a liggéey parfum koloñ dégg nga noonu la demee ñu ne wa machine ak machine yi di ndox rek waaye nag bi xasi sakari yi bu dee machu la na raxas awraam bi lépp mu ne bi xasi sakari yi kullihi léppam ku génnee masiw na raxas awra bi lépp fa fi niyati nekk na ci yéene ba bu koy raxas déggal de ak ñàkk yéene ba xawlaa ni ñaari wax dañ koy xaddam wa but laañ salaati taarikiya nekk na ci yàqu julli ka bañ a ba muy raxas masiw ba jullim dana wér wala du wér aw taariki kullihi wala ku raxas gën wàll nga bañ raxasul léppam ndax ñii seen julli wala du wér xawlaa ni ñaari wax fa fi niyat yi nekk na ca eh, war a yéene ku raxas kanam ga dem dafa génne ma ndax day yéene wala du yéene dégg wax bi de bu bundaani salaat yi tarikiya ak yàqu julli ka nga xam ne ah dafa bàyyi yéene ba xawlaani aw tarik kullihi wala ka bañ a raxas lépp raxas gën wàll ga rek jullim wér na wala wérul xawlaan wala yustanja wala yastanji boog wala yastanji bu mu tànc moom mukkalaf mi min reexin ci ngelawal ngelawal kenn du ko tàncu déedéet wala yastanji min reexin jaasa dagan na tàncu bi yaabisin ci lu waw bant bu wow loo koŋ dagan na mu tancoo ko bi yaabisin waaye taahirin mu nekk lu laab nag munqin nekk luy setal wecc wecc wecc te xayri moosin du nekk luy lor nit du nekk lu mel ni bant buy gaañe wala lencet déedéet buñ ko tancoo daganut